alors sur la tension sociale mun nañ ci des parce que wax nga lu am solo sànq que ne euh, réew mi war naa mën a bañ a tàbbi ci foofu alors li ñu gis mooy contexte politique bi ñu jëm ak surtout échéance bi muy 2024 euh, ni nga ko énuméré léegi jàpp nañu ne lu ci ëpp ëpp ci ay dossiers tax na tension bi di plané wu à chaque fois muy euh, Karim ak xalifa mi ñu xamul ndax dañuy bokkam déet Ousmane Sonko mi dem procès te dara <laughs> daraam leeragul alors ñu gis ne loolu yëpp aussi tax na kilifa diine également génn def sortie euh, moo xam ëtt këru diine bu nu mën a bokk alors cette sortie là bi ñu nemmeeku ci kilifa diine yi te yéen yéen les politiques ñu mettre leen devant votre vos vos responsabilités est-ce que waroon nañu yegg à cette à ce stade euh, ndax politique rek jar ko. yegg nañ fa ba pare. problème bi kay mooy naka lañ koy décranter naka la ñuy fexe ba reculer da xool kan mooy responsable. Mm-hmm. da seet ku taal daay bi. xam nga yeewu na da ngay def troisième mandat taal nga daay. oui mais la responsabilité ici elle est moom moo def. mooy responsable dinaa ñëw ci loolu je mm-hmm. ku nekk am nga sa responsable. Mm-hmm. mais faisons la part des choses. oui. boo taalee am ñu lay xambal taal 31 wax naa ko ci benn débat ma ne leen bàyyi leen xamba taal ñii xamba taal affaire troisième mandat di xamba taal nañu jàpp Ousmane Sonko warul bokk ci élection yi ñoo ñoo bëgg a taal réew. Mm. benn. donc hmm? xam nga daal ba pare nga xañ bokk participation ci parrainage xañ bokk ci dossier judiciaire hmm. ba pare nëbbu jant nëbbu jant ku manifester manifestation autorisée par la constitution nga def arrestation boo xañee bokk nëbbu jant taal daay xamba taal processus électoral diisoo nga bañ di jël décision yow kenn euh, kan mooy responsable loolu nañ ko dindi buñ ko dindee ba pare di nga xool léegi nag ku nekk ak sa façon combat am na ñoo xam ne bu ñu sësee ci miir bi dafa am nu ñuy réagir xam nga muus boo ko dóoree bu dóor ko ba yàgg moom rek ci néeg bi ba mu sës dafa am nu muy réagir buy réagir nag mun na am ay dégâts collatéraux loolu day am moo tax ñun dañuy invité nit ñi ñu éviter di tomber ci provocation yi ñu organiser mieux pour faire face parce que boo amee dëgg da nga koy expliquer calmement nit ñi mag ñi këru diine yi nga expliquer leen mais doo ŋàññi kenn parce que responsable boo juumee rek ci sa adversaire da ngay def erreur donc pour man euh, président Macky Sall bu buggee jàmm mën na ko am suba suba ci opposition bi am nañu ay nit ñoo xam ne am nañu responsable li fi xewoon 2022 lan la bi mu newee ba tàng affaire liste yi loolu dara gënu ko garaaw pourtant ils ont participé dans les ci élections yi avec des suppléants. 31 mhm. euh, euh, le 20 2021. Euh, au mois de mars gis nga li fi xewoon est-ce que demul arrièreul ba nit ñëpp jàpp ci. Mhm. kon bu ñu buggee jàmm dinañ ko am. Mhm. alors beneen affaire bi mooy une démocratie bu mel ni Sénégal ñu ngi dem ci 2024 élection des candidatures se déclarent ni ko Khady waxee sànq mais kenn leeruñu ne di nga bokk ci boobu leeg élection. loolu naka nga ko jàngatee y compris même le président sortant xamuñu ndax day bokkam de c'est vrai que ñu ngi ñooy agi <laughs> agité troisième mandat mais moom waxagul dara mhm. mais ñu ngi jëm ci élection moo nga xam te ni leerul kenn xamul kan mooy bokk ci cëppaandaw la alors loolu est-ce que ci démocratie bu mel ni Sénégal warul woon xool warul woon na loolu mooy instabilité nekk ab jafe-jafe eh, ci bu nu mën a loolu mooy cest à que nit bokk élection droit la da ngay réunir ay conditions bokk élection mais ñu galgal la ba doo mun a bokk élection loolu mooy coow li. fii képp ku fi am dossier judiciaire bu jaar yoon nga dem justice ñu condamné la kenn du ci wax. personne ne va lever le petit droit ku lay soutenir dina la soutenir ne la massa man am na dossier yoo xam ne bu doon état bi dugalu ci loxoom dara nekku ci tax du ma ci wax du ma ci ŋaan bu doon procédure bi dafa jaar yoon du ma ci wax du ci ŋaan parce que moi je suis un républicain. je suis un républicain mais balaa ngaa wax ni il faut laisser la justice fonctionner normalement dafay fekk tout jaar yoon mais yow tu as toutes les preuves dans la rue que y a des problème mu Sénégal bu ñu demee ba sunu démocratie di am problème participation y am un problème mais le responsable tudd leen ko troisième mandat bu ñu demee ba am loolu nga xam dañ koo wax waxati ko mu indi ay mort ñu wax ko ba jël ko teg ko fële ba ñëpp fàtte ko ba moom ci boppam pour dalal xelu nit ñi mu ne moom dootu ko du ko def te ba léegi waxul ne da koy def waxul ne da koy def donc aujourd'hui mais mais mais tout ci say kàddu da nga bi ñuy wax ci parrainage bi que que que Macky dina utiliser moyens yu mu am yëpp pour bañ a euh, dem deuxième tour ndax ndax da nga jàpp ni c'est vrai que moom waxul mais ay jege ñaaleem ñu ngi koy investire ndax da nga jàpp ni dafa dafa nar a ut troisième candidature. mooy man la jàpp tànk mais bu ñu ko téewul da koy dem oui bu ñu ko téewul da koy jël ne toog fii taxaw xool ñëpp. Mm-hmm. aujourd'hui yow est-ce que yenu na maanaam ngay nekk état man danaa nekk chef d'état ma nommé premier ministre nommé ay ministre ak ay DG. sant leen liggéey ak coono yi am fii Sénégal ci dund bi éducation santé sécurité xam nga la mooy seen liggéey ne dañ may investir di concours mobilisation yépp ay nit ci ay kaar dëkk bu ne ñu ne fa naam daraame di concours mobilisation loolu tu penses que c'est sérieux est-ce que c'est respecte les sénégalais DG yi bàyyi liggéey bi ñu war a def xaalis boo xam ne xamoo sax fu ñu ko jëlee ñuy war dëkkoo dëkk yow nga nekk chef d'état bàyyi leen ñu koy def mais sénégalais pourquoi ñu d'accord ñu leen di yàpp man loolu moom ma jaaxal. donc pare nga pour bokk ci plateforme contre le troisième mandat. oui oui ñun tous les combats. nous ah. sommes sur tous les pour nga bokk non non ils ont déjà il y a une démarche ñun tous les combats. on a un parti politique qui est dans tous les combats démocratiques. par contre nous sur le principe on est toujours. sunu principe la ñuy alors euh, euh, sànq sànq leeraloo par rapport ak euh, ndax da ngay nekk candidat ou pas parce que yaa ngi wax ne da xaar que toutes les conditions soient réunies. Euh, ci li nga xam ne moom mooy sa entourage une élection sa se prépare daanaka lu tax ñu yegg ca fukki weer ak benn lay toll est-ce que instant bi ni ko ñenn ñi defee nga xam ne Idrissa Seck même si euh, d'une façon voilée la waxee Déthié Fall très clair entre autres yoo xam ne dégg nañu leen euh, ci ci week bi du jaar yoon nga wax askan wi ndax vous êtes candidat ou pas xam nga man j'ai beaucoup de respect pour les Sénégalais mm-hmm. affaire u candidature présidentielle du dooy affaire déclaration c'est un affaire à faire bul compter li des ci weer yi da ngay compter bi ñu fi nekk léegi ak li ñu def xam nga man li ma liggéey. donc yaa ngi koy togg ci suuf wala. ci kaw togg boo xam ne yekk bi moo. non je on est mais attends. Oui. on a fait je vous ai dit suñu stratégie c'est la conquête du pouvoir. Mm-hmm. naka lañ koy conquérir sa dépendra des configuration qu'il y xam nga Sénégal mun nañ nekk benn situation boo xam ne bii on sera obligé comme en 2000 de faire une coalition autour de quelqu'un pour faire partir Macky Sall. c'est possible donc yéen a ngi xalaat possibilité boobu loolu c'est possible. mun nañu nekk dans une possibilité boo xam ne il y a tellement d'instabilité que organiser élection day poser problème donc pour man ñun pour pour man personnellement ce n'est pas le moment ne serait-ce que pour ça ensuite sur la préparation il faut une préparation ñun nag ay soldats lañu dafa am lu ñu jàng ci stratégie. di ko def mais yow est-ce que yaakaar nga ne politique caaxaan la ba nga xam ne da ngay gis ku nekk ci pouvoir ànd ak ñoom nekk di développer benn politique nga meroo ci benn sujet meroo provisoire ñëw ne opposant nga <laughs> mais mais man. man loolu mënul dugg sama. waaw gis nañu di sa sekk maa ngi koy wax sànq. moom rek c'est-à-dire ngay ñëw. mais mais politique ce n'est pas du. pas une du du c'est un cadre en pour faire acteur, en tant qu'acteur observateur aussi naka nga gisee cette sortie eh, bi am samedi Idrissa Seck même si ni ñu ko waxee d'une façon voilée mhm. mais que quand euh, li nga xam ne moom mooy euh, fauteuil bi mi mi ngi koy xaar en quelque sorte mais ma ne fauteuil bi xaarul kenn fauteuil xaarul kenn tu vas faire la conquête du pouvoir tu expliques aux gens que tu n'es pas tortueux que tu as un programme que tu as fait ça bi nga yoree pouvoir li nga def nit ñi déggal la votal la c'est le peuple qui arbitre mm-hmm. man situation bu fi ne am na ku jóge nag ci ci ci ci pouvoir am loo mer ñëw ci opposition bi bokk ci plateforme yi Aminata Touré ngay wax laay wax man képp koo xam ne kii da nga yaakaar ne opposition c'est da ngay ñëw non ñoom ñëpp sumay xarit lañu man ñoom am waxuma kenn dama ne képp ko man sama conception politique mooy opposition tu as un projet alternatif boo xam ne moo gën projet bi fi am nga taxaw di ko liggéey du koo xam ne da ngay mer ñëw parce que lépp lu ñu def nga bokk ci defar ko ànd ci nga ñëw ne da nga d'accord au troisième mandat yow léegi yow. mais yàgg na ko xeex mais le le combat le combat pour le troisième mandat c'est un combat démocratique. mais vous parlez en fait. moi je parle de l'opposition un projet moi je veux projet contre projet. nga ñëw ne ma lii mooy sama projet de société agriculture lii laay def ma ne la man lii laay def éducation lii laay def man loolu laa gisagul mais y a des hommes politiques yoo xam ne fii boo leen joxoon réew mi de dañuy daw. man man bëggoon naa bëggoon naa ñëw xat yi. bàyyi leen xam nga débat lu ko yàq actuellement affaire mag affaire président Macky Sall moo xaw a yàq débat politique. mais gis nga bu dandu woon tuuti. ba ñu teg programme yi. foofu la Sénégalais di. pas dépassé nañu ko mais dafa am coow parce que yaa ngi ñu ko présenté waat encore muy le plan Bouti. les gens parlaient du plan Déthié Fall nga indi plan Boudy bu ñu bu ndax aussi bu fekkee moom noonu la ñu ko mën a comprendre au départ yaa ngi wax l'intercoalition yaa ko togg yow yow yaa ko indi ba mu yegg si fii malheureusement yegguñu ci cohabitation mais euh, li ñuy comprendre souvent di ko dégg mooy le plan Déthié Fall lan nga ñu ci wax. waaw mais xam nga xam nga loolu waxoon na yow la nga bëgg histoire rek. parce que denc suma rakk la te man mosuma dégg mu taxaw ne moom moo ko def. waxoo ko fii ko wax. Mm. dégg naa ñu ko doon wax waaye man xam naa ne man maa ko def ak ni ma ko defee y' a de témoins que man du ma dellu si loolu. te ñun ñëpp ñoo ànd bu amee aussi boo proposer sa idée aussi bu amee c' est parce que les leaders étaient d' accord et tout donc loolu c' dépassé. Mm-hmm. vraiment mais bu ñu ko defoon ni ñu ko waroon parce que man dama demoon ba comprendre attends tout le monde l'avait si tout le monde l'avait depuis avril depuis avril 2022 tout le monde savait avait ce plan ça a été la base de la discussion am lu ñu ci nangu am lu ñu ci nanguwul donc loolu amul werante mhm. mais gis nga réew bi ma demee ba comprendre ne assemblée nationale jël ko moom mooy régler problème yëpp bu ñu jëloon assemblée nationale am cohabitation def suñu gouvernement changer li ñu war a changer régler affaire parrainage est-ce que coow yëpp dinañ ko am on l'a pas fait. Mm-hmm. par exemple on n'a pas eu de liste unique sur la liste nationale on a perdu huit députés. très bien. donc loolu moom passé na mais politique loolu mënu si ñàkk xam nga jékki-jékki jékki-jékki bëgg a jël dara ne yaa ko man ñun bokk yooyu dérangé wuñu quoi. d'accord <laughs> alors malheureusement wax dab na <laughs> bu bu yàgg sax ñun ñoo xaw a xaabaabal mais def nañ ñu signe ça doit faire dix minutes. Mhm. ñu ciy jégalu bu baax sax waa régie mais en tout cas merci d'être venu waxtaan bi riche na c'était un plaisir de vous avoir. merci yéen tamit maa ngi leen di sant bu baax dernier chapitre moom affaire Afrique lay wax. Mhm. di fédération de l'Atlantique Ouest. loolu am na solo aussi. et loolu am na lu ñu ci wax ñu ngi leen di sant bu baax c'est toujours un plaisir ñëw fii.